Diouf ñoo ko bàyyi sama yaay Diouf la sant moo tax sama nijaay naka mu ah, ñu bàyyi la nga nuyoo waaw euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp sama maman Soukeyna di nuyu bu baax ma jigéen euh, <laughs> Laaji Sa ak euh, suñoo Omar maa leen nuyu di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan yëpp nuyu askanu Sénégal di nuyu aussi Ziguinchor gi ma jóge sama mbokk étudiants yi fa nekk di nuyu bu baax sama famille nag waa Touba Mbacke la village bu ñuy wax Daga Diouf maa ngi nuyu leen di nuyu ñoom ñëpp di ànd ak mbégte ak contentement ñëw ci émission bi di nuyu Baye Assane Misra sama mbokk Bawol ba wala aussi tamit sonn na ci émission bi am naa mbégte daal contentement ñëw fii ñu waxtaanee actualité bi nga xam ne moo xew Assane Seck mhm. lépp loo xam ne xam nañ ko ci incha allah de la ñuy expliqué ni ni mhm. fay yi demee ak lépp lu fa xew mhm. jërëjëf actuellement yéen a ngi vacances ñoo ngi vacances lu leen ko yóbbu waaw conseil académique moom moo décidé à ce que dañuy tëj université bi suite mooy manifestation yi xewoon lan ngeen def ba ne dañ koy tëj waa euh, dafa am lu jiitu tëj bi. muy mm-hmm. ay manifestations yu fa xew yoo xamante ni étudiants yi dañuy réclamer li nga xam ne ñoom ñoo nekk seen ay droit muy côté social ak pédagogique ndax gis nañ ci ay communiqué yoo xamante ni ministre bi moom moo diggee woon ne que. dina incha allah balaa ci diggee yi kii mm-hmm. topp dinañu illustrel la ngeen fa def. Mm-hmm. maanaam la ngeen def ci université fan ngeen ko teg. maanaam lan leen def ci université bi. ngeen di jàngee ngeen yàq ko ba lépp lu fa nekkoon ñu yàq ko ñu tëj université xam na xëy ñu tëj ko. Hmm. mais seeni jëf moo tax ñu tëj université bi ay étudiants ay intellectuels nit ñoo xam danoo jàng war a jàngale wala yéen nit ñi. Hmm. lan moo leen yóbbee loolu noonu am na ñu ko jàppee reewande. am na ñu ko jàppee sàggante kenn xamul li ngeen def loolu ci jublu maanaam kenn xamul lan la ko hmm. maanaam man bi ma ko gisee li ma njëkk xalaat mooy. ñi def lii est-ce que jàng nan. voilà xam nga question boobu la ñuy posé ñu def lii est-ce que jàng nañ. Ah. mais buñ jàpp ne étudiants yi ñoo ko def. koo def voilà très bien c'est cette question parce que man mii di wax ak yow ko def parce que bi ñu koy def fekkuma fa xaw ma ku taal parce que dama dama bëgg nit ñi xam ne que université Assane Seck Ziguinchor comme li am UCAD sécurité bi fa am grande porte bi amul université bu la bu la neexee nga dugg fa tey heure bu la neex ngay dugg kenn du la ne foo jëm ci biir grande porte bi je pense que loolu tey jii ne situation xewoon na bi xewee tamit gis nañ vidéo yi ñëpp nekkoon ci biir université bi muy étudiant muy takk der muy étranger ñëpp fa nekkoon donc tey jii man jàpp mu ne que étudiant moo ko def parce que gisuma ko ko def. non non pourtant donc bu ñu jàppee ne que étudiant ñoo ko ay étudiant avoué nañ ko. ay étudiants man dégg naa ay audio yuy kii nu mu tudd waa ji ànd ak Sonko borom boobu sëq bi tam warut. Azura mhm. ñu dem interroger ay étudiants. Mhm. ñu ne gars yi ñoo leen jàngal taal. Mhm. parce que nii lañ daan def ceci ou cela ay ay étudiants wax. te aussi tamit université ba keneen dugg fa di lakk wala mu yàq ku ñi mer. Mm. kon boo nee du ay étudiant te noo ñu wax ñan la kon dañuy jàpp ne ay étudiant la ba ba ñuy gis leneen. waa xam nga mm. tey jii nii man gisuma ko étudiant bu ko avoué. Mm. parce que man seetaan naa vidéo yi. yi ngay wax nii fekkuma fa nag bi vidéo bi ajura di ñëw man maa ngi woon sama chambre tëdd. mais gis naa vidéo yi mais gisuma benn étudiant bu ko avoué. ki doon wax la parce que tamit attention ki doon wax lan la. ki doon wax étudiant la. mais tey jii li mu wax waxul ne étudiant ñoo taal. loolu la loolu la waxul ne étudiant yi ñoom ak ajura ñoo doon waxtaan ba ne. mun ne ko yéen yéen ñu jàngal li ñuy def loolu la wax Azura. li ñuy def comme lan. comme yàq ak yooyu yëpp loolu la wax Azura. Ah, parce que c'était devant nous. Hmm. bi ñu koy wax vidéo yi gis nañ ko. mais waxul ne carrément étudiant moo taal parce que tamit taalay oto yooyu nit ñi dañ koy ñaawlu man première personne bi ko ñaawlu man la dama ne loolu nit dugal ko waxuma la mais nit simple warul taal bien biens publics de l'État maanaam lool yenn moom doo ko mën yàq sa alal. non loolu nit du ko def fi ngay jàngee yow war fa tekkee war fa teddee nga koy taal effectivement loolu nit di ko def. Hmm. dèjà ñun ñëpp amul kenn ku ci d' accord man boog étudiants yi ma xam ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyandoo ñun ñëpp les premières personnes dañ ne lii du yoon. Hmm. dèjà ñun wax nañ ko recteur bi wax nañ ko keneen ku dul recteur bi ne ko lii du yoon mais nañu cité les responsables ñu ne kan moo ko def mais li ma mënta jàpp mooy ñu ko def loolu moom ku ko parce que tamit présomption d'innocence day am si ak loo mën di doon. non non loolu. mais mënoo ñëw ne étudiants ñoo ko def ndax. day conseil académique bi bu demee bay jël décision pour fermer université bi. xam nga tam parce que ñun récemment barki démb ñun ak ministre bi ñoo nekkoon Saint-Louis dañ koo fermé parce que ëmët mën na fa am parce que dañoo gis ne étudiant auto policier bu heurté benn étudiant ba nar ko rey loolu ñëpp gis nañ vidéo yi te pourtant loolu lañ gënoon war a accentuer parce que bakkan moo ëpp fuuf ay matériel yàqu auto bu dugg ci biir camp bi sax mais warul ku yàq li parce que boo nee boo nee yàq moom boo nee xam nga yàq maanaam y a pas de fumée sans feu ah, parce que fumée tàkkee rek da am lu saxaar ba xeeñ ba pare maanaam li saxaar ba xeeñ mooy yàq gën fa yàq moo yóbbee nit ñi ñu foog ni lii bu continuer leneen mën na fa xew bakkan mun na rotoog yooyu nguur gi mm-hmm. jël les devant ak conseil académique bi ñu ne nan te université bi kon yàq yi ñoo tax ñu tëj université. man pour que loolu débat yàq bi dama a ko teg que yàq amul njariñ même sa kër gi nga dëkk sa waroo ko mën a yàq surtout bien public boo xam ne sa papa ak sa yaay ñooy fay pour état mën ko utiliser yàq yi ñëpp a koy ñaawul mais la ñu war a gën a mën a ñaawul muy étudiant étudiant bu ñu fa naroon rey pourtant dégguma kenn wax ci étudiant dañ ko naroon rey. non loolu yow yaa ko wax. waaw non dafa am vidéo yi gis nañ ko. étudiant bu dàq police ba nar rey aussi tamit gis nañu ay vidéo à que éti policier dugg ci biir campus di di door di di di dóor étudiant étudiant tëb. mais lu tax lu tax policier yi duñ fa dugg. mais ñu jox leen espace boo xam ne Sénégal yëpp ñoo ko bokk ñu war fa jàng. ngeen mel ngeen ba ko def fumier bu ko yàq complètement les forces de l'ordre dañoo war a dugg foofu yamale leen. non parce boo leen doon jàng ci xam ne bi ngeen jàng ci jàmm ak salaam. taaloo leen yàqoo leen. force de l'ordre dugg fa bu ñu bëggee ni dafa mel ni nga incombre la responsabilité aux étudiants. ba ba ba may gis leneen. man damay ah, jàpp ni c'est-à-dire que ah, waaw mooy loolu. c'est-à-dire que nit ki ah. il faut que may ko présomption d'innocence. yaa ngi ni di di jiñ yi bu jàpp ne étudiants nga ne. étudiants non non waxuma ñoo ko def. mais bu ko deful ku ko def. non non man li ma dégg mooy ay vidéo ay étudiants di assumer. yu Azoura Fall jël. waaye léegi vidéo fi solution. ak hmm. avec une vidéo nañ jël étudiant moom ne ko ndax yaa tax. aussi avant loolu di xew y avait des menaces yi ngeen doon def. yan bu lii xewul bu ministre bi deful luy defal lii. te pour la double la première fois université Assane Seck. Hmm. yi di ma lii lu yàgg la. waaw maanaam seen coow li tàmbaliwul tey. mais c' était pas des menaces yoo xam ne c' était xam menaces yi lan la woon. Hmm. dañ leen menacé. léegi yoo xam ne da nga ne déglu ma da ne danoo bëgg éviter ay ñu tëj université bi. lu tax ñu que am na lu xew waaw très bien xam lan moo xew muy ministre bi dafa digge woon deful lim lim digge mhm. étudiants yi dajaloo ne bu fekkee ministre bi date bi mu joxoon ñëwul deful lim ñu digge Assane Seck duñ duñ jàng loolu la étudiants yi wax mais pas ay waxu violence yoo xam dafay am loolu mooy menace parce parce que kilifa tamit kenn du ko menacé ministre bi kilifa la boo bëggee wax ay personnes étrangères ñoo ñëw dugg ci université bi di def du n'importe kan moo taal waxuma personne étrangère waxuma kenn dama ne la hmm. man gisuma ko taal xaw ma ko taal mais li ma la wax mooy buñ ji bu nangu ne étudiant rek ñoo taal. mais taal parce que université. mais taal bi ñëpp gis nañ ko. waaw jeex mais man li ma wax mooy buñ ne étudiant ñoo taal man je ne pas d' accord xamal tax gisuñu man boo gisuma étudiant bu taal ba tey may waxee gisuma étudiant bu taal. Hmm. donc tey jii nii man je suis le défenseur des étudiants. mënu nangu étudiant ñoo taal nañ dem. parce que da ngaa far quoi moo mais c' moom laa war a représenté a faral. Hmm. mais tey jii bu ñu jàpp ne que moo taaloo je ne suis d' accord léegi li ñuy wax mooy nañ dem ñu situer les responsables ne kan moo taal on a les moyens pour xam kan moo taal nañ ko am en tout cas li ma mën a mooy étudiant université Assane Seck Ziguinchor la grande porte fa dugg def lu la neex te duñ ko xam parce amul moyen de sécurité boo xam ne mën nañ sécuriser université bi loolu amul mais man li ma la waxu taal bi ñun ñëpp ñaawal nañ taal bi mais bul. amoon buñ nangu ne mais mais yow tamit da nga soupçonné étudiants ñoo tax. des raisons non man dama dégg dafa taal xam nga vidéo bi vidéo bi ñëpp gis nañ ko régime mën nañ teg vidéo bi bu fekkee ñi ngay moom hmm. mais bu bul ne étudiant bi ñoo étudiant bi assumé de parce que bi mais taal crime la de xam bien public lan la crime kan moo dof même boo taalee sax ne maa taal Ah, crime la crime moom ànd naa ci ak yow xam nga crime la kan moo kan moo def ne man sax maa taal kan moo koy wax nit du ko wax ci kaw suuf ne man maa def na du ko def surtout crime loo xam ne ay taal la hmm. donc je pense que étudiant boobu noonu doful étudiant bu jàng ba mu bagam ñëw ñëw ne man maa taal loolu du ko def donc man jàpp naa ne man ba jusqu'à preuve du contraire bu ma gisee nag étudiant ñu ne diw mi moo ko taal avec les moyens preuve hmm. ah bu boobaa moom Omar ba mu waatoon fii ma ñëw ne ah, kon ñun ñëpp nañ ko gisandoo hmm. mais nañu dem xam kan la je pense que tey jii li ñu war a waxtaane muy lañ moo waral grève bi loolu la ñu war a gën a mën a waxtaane eh, eh, balaa ñëw egg foofu kay li ngeen yi kay man taalee waral lépp taal yi ba suba bu ñu doon waxtaan li ma la wax mooy man xaw ma li leen man taal bi mën hmm. la la si am man hmm. la gën a metti parce que man man maa ci dugg ci oto yi di dem hmm. xam nga man maa ci dugg man mi ci dugg nag man la gën a métti. Mhm. mais tey jii li ma wax mooy pour mu mën a pour débat bi mën a neex mooy nañu dimbali ñu ñu ñu waxtaan ñu xool kan moo taal mais ñu bañ koo jiiñ étudiants yi à 100 pour cent. Mhm. parce que xeex moom bu amee université bu takk ñëpp a ci dajaloo xeex bu amee xeex bi dafa tollan foo xamante ne ñëpp a dajaloo si biir coow li bari na ñëpp a ngi si biir mënatoo xam sax kan mooy kan. Mhm. donc tey jii nii dëgg yàlla man waxu taal parce que man bi ñuy man jour bi première grève bi sax fekk ma c'est waaw macha allah <coughs> waxtaan bi am na solo mais nag yow euh, ñi ngay layal neexul ñoo layal de parce que <laughs> parce booy yi dañ ne dañoo yàq ba jot ci réew mi booy li booy bi li mu wax dafa leer de hmm. daf ne yàq gi tàmbaliwuñ ko tey dañoo yàq ba jot ci réew mi hmm. loolu la booy bi wax xam nga loolu kooku bu fekkee ne bu fekkee ne bu fekkee ne non contexte bi mu ko waxee mooy contexte bi nga xamante ni bii Azura daf leen di expliquer ne leen lii waru leen koo def mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. mën nañu waxtaan mm-hmm. ñu ne ministre bi daf leen a wax lu du dëkk maanaam loolu mooy li nga xamante ni bi moom la booy bi wax ne ministre bi moo fi ñëw wax leen lu du dëgg niñ ko waxee sax gën na saf noonu parce que defe naa ni suivre nga yëf yi ni nga xamante ne bi noonu la def vidéo waaw xam nga yow mën nga wax ni gisoo hmm. yëgoo loolu mën na nekk yow mais ñoom ñi doon wax noonu peut-être mën nañu wax waxu topp seen xol hmm. wax mais en tout cas wax jooju du wax joo xam ni war nañ ko wax ci pénc bi hmm. parce que loolu boo ko waxee nit ñi dañuy joxoñ ne yéen la loolu du wax la juy taqal quoi xam nga yow ñëw nga tey jii bu fekkoon ne yow yaa njëkk a peut-être nit ñi mën nañu am beneen gis-gis. mais mu ñooñu nit ñu communiquer même bu fekkee ne bi taaluñu day tax xel yi day day da leen di xalaat. est-ce que loolu waxtaan ngeen ci tamit. waa xam nga vidéo bi ñun ñoo ko gisandoo. Mhm. man Azura bi mu fay ñëw yëguma ko. Mhm. man maa ngi sama kër tëdd dèjà yëguma Azura ñëw na fi. waaw Azura barki démb rek ñoo nekkoon ci guddi gi nii euh, bi ñuy dem ci directeur Sénélec. Mhm. donc tey jii nii ñun li ñu wax mooy que ministre bi kilifa la. Mhm. du amul kenn koo xam ne war nga mën a taxaw di ñàkkal ministre bi war ma am mhm. lu man di doon. Mhm. te di wax ne carrément ñun réew mi ñun ñëpp ñoo si liggéey ba mu toll fii. donc réew mi mun na si ànd nga liggéey ko. étudiants yi ngay gis fii yëpp dañoo ànd liggéey ci réew mi. ba ah, ñi ñu falu falu ñëpp xam nañ ko. voilà <laughs> léegi nag ñoo ñu tey mënuñu ñëw ànd liggéey ci réew mi. waaw de huit mois ñu ñëw di wax gouvernement boo xam wala di yàq. voilà mais nit ki nag ku ci nekk danga koy nangul tempérament parce que mm-hmm. tamit Azura ba mu fi ñëw jour boobu fekk na ñëpp mer nañ. Mm-hmm. man étudiants yi ma bàyyoon si foofu Assane Seck ministre sax bu fi ñëw mën nañu ko dégg. Mm-hmm. loolu nag moo am. mais da ngay jàpp ne contexte moom mais bu ñu jàpp ne carrément boobi li mu wax carrément day moom day firndeel na ka. ñoom ñoo taal. mais boobi ni mu ko waxee. man li ma gis vidéo bi ma gis dana ko carrément yéen ñoo fi nekkandoor ak yéen di yàq ba ngeen jot ci réew mi. mais mais booy bi avoué wul ne mu ñoom ñoo yàq. non dañoo yàq ba jot ci réew mi la wax c'est que ni nga ko waxee nii da defaraat wax ji waaye dañoo yàq ba jot ci réew mi ñoom ak Azura. waaw maanaam ñoom ñoo yàq nga man fekkee mu fa. Mm-hmm. donc du ma a avoué aussi tamit man c'est devant les étudiants. ok léegi man a nangu ne que jusqu'à preuve contraire. léegi d'accord xam nga xam nga dama jàpp ni étudiants yi xam nga ay intellectuel gën man mm, jàpp naa ni ñeneen ñi nga xamante ni bi bu ñu defee lenn li amul problème mais man dama jàpp ni li xew mm-hmm. li leen ministre bi dikk mm. bu dee yéen a ngi suivre gouvernement bi depuis que ñuy wax war ngeen a xam ni problème am na ci réew mi am na loo xamante ne bi ministre bi même bu fekkee xam nga yéen waa ji dafa expliqué ne mm-hmm. ñun laajuñu ko ministre bi moo ñëw ne lii yellu na ci ñun effectivement comme moom moo leen wax ne leen yii yel na ci yéen lii war na ko def tey it voté guñu budget defaguñu dara est-ce que yaakaaru leen ni mënoon ngeen ko may ba li nga xamante ni bii moom lañ ko war a defal jot buñ ko defalee te defut li mu war a def ngeen soo ko wax ne defu ko mais fi mu toll nii est-ce que yaakaar ngeen ni eh, mën na ko ci jamono ji voilà merci Alaaji Sarr je pense que loolu moo tax sax euh, ñu mën a ñu mën a ci waxtaan dugg si débat bi parce que quoi qu'on puisse dire ñun man droit def finance nan lay doxee c'est que budget na lañ koy voté actuellement loi de finance rectificative moo mën a am te loolu après installation assemblée bi la mm-hmm. vers janvier parce que marathon budgétaire lañu jëm loolu ñëpp xam nañ ko mais le le 7 janvier mm-hmm. le 7 juin ministre bi moo ñëw Assane mm-hmm. ñu dem campus social campus pédagogique visité vidéo yi ñëpp gis na ministre bi ne dans deux mois dans deux mois ma wax loolu dana livre les centres ñëpp gis nañ ko après bi ñu bi ñu bi ñu xoolee nee na ñu carrément euh, la euh, lancé DMCS ba Bamba Fall moom moo ne ko carrément dans deux mois mën nañ koo livrer après ministre bi joxe joxe date boobu. ok ministre moom moo ko wax. Ah. mu woowaat ñu jam la le 26 septembre. Mhm. parce que dañ ne woon étudiant du ñibbisi tant que li mu waxoon defu mhm. mu woowaat ñu jam ñaajo le 26 septembre ne problème fond la woon xaalis. waaw mais lijjanti naa xaalis bi les fonds sont disponibles. Mhm. devant toutes les universités Sénégal. représentants des étudiants mais ñun ñëpp xam nañ état bi amul xaalis. yow xam nga ko man xam naa ko mm-hmm. parce que dëkk bi dafa metti mm-hmm. ñi fi nekkoon ñi ngi naan ñoo lekk lii ñoo lekk laa ñoo lekk lële. Mm-hmm. mais dugg si détail parce que on est mais li ma ministre bi wax lañ mën a jàpp moo ne lijjanti naa ay fonds te personne ne peut nier que ministre moo ko wax parce que c'est devant toutes les universités du Sénégal. mu ne Assane Seck Bambey Thiès ñooy samay priorité ba waa UGB génn nañ ko ministre di ko fustiger. léegi ministre bi ne lijjanti naa xaalis. mais dans deux semaines l'entreprise marocaine ngeen baal ma si kii bi plus de jet contracteur mooy ñëw livrer deux mois on mais kooku am na xaalis wala amul xaalis. Ah, li nga de l'état de manière générale. mais ministère bi moo ne am na xaalis parce que entreprise bi 13 milliards la. Mhm. mais entreprise da leen su ko ma joxe 8 milliards dinaa commencé livrer xam nga chantier kan la fa nekk. Mhm. depuis 2015. la fa nekk mhm. chantier 1000 lii ba fa nekk xam nga lu des. ay lal électricité restaurant bi dañ ne restaurant bi mënul mënul fonctionner wu xam nga Assane Seck ñaata restaurant moo fa nekk benn cent 350 places restaurant bi am 350 places on est 10 000 cent 350 places 10 mille étudiants ah ñun dañu mujj tabax yeneen ñaari batiment yu ndaw cent place extension léegi loolu noonu étudiants yi dañu fay toog étudiant boo war a añ 11h di hmm. rang ba 14h jusqu'à même 14h30 hmm. booy duñ mën a lekk dañu mujj dem seen yoon. Ah. léegi yow 2007 ba léegi ñun université Sénégal huit université benn Assane Seck moo ci am benn restaurant te ñun ñoo ëpp sax yeneen université yi am na ñoo ñoo leen ëpp fii nombre. waaw ñun on est 10 ren ñu ngi war a joxaat 5013 5013 mu mu ci nombre 5013. Mhm. loolu ñaata léegi loolu de presque 15000 15000 étudiants. waaw léegi ñoom benn restaurant ñu proposé ministre bi ne ko une nouvelle zone de production la ñu bëgg zone de production ñun mhm. bi pare na xam nga lu des jël ay marmite dugal am benn repreneur. ñu togg ñu alléger la situation ñu am ñaari restaurant la concurrence sera là-bas léegi nag restaurant parce que euh, soxna sax soo ko yoree ci kër nga am wujju concurrent bi togg bi dina neex loolu lañ bëgg ministre bi ne lii moom mën naa ne ñu ne un mois ministre bi ne ah ñu xool moo équipe ñu ne un mois le le sept juin la fi ñëwoon ñu ne un mois léegi nag bi ñu demee situation bi di gën di kawati beneen situation ñëwaat fi mooy muy ministre yoreel repreneur yi vingt milliards mm-hmm. vingt milliards mu yi léegi repreneur yi mu yoroon 20 milliards Assane moo ci gën a dund parce que Assane Seck qualité bi dafa wàññeeku qualité bi ñuy lekk dafa doy waar. dafa doy trop liñ fiy lekk noonu mënuñu ko expliquer kenn. Hmm? ah oui xam nga Assane Seck na ñaata lii moo nekk ci ci campus bi 918 lii moo fa nekk sur 10 000 étudiants hmm. maanaam 3000 étudiants sax nekkul ci biir campus bi. ok léegi nag 918 yooyu noonu maanaam 10 pour cent yi. boo xoolee 10 pour cent moo logé 90 pour cent yi ci bit lañ logé Ziguinchor c'est une zone enclavée bu sori. Mhm. mu am benn histoire logement yi seer dëkk bu metti dafa sori torop torop da ngay daw ay kilomètres doo àgg. man nga daw 24 heures doo àgg. booy yi dañuy am na yoon dañoo bàyyi jàng ndax ñàkk logement man mii di wax nga ne man maay président commission sociale man logement yi sama loxo lay jaar. Mhm. man su ma lay wax li may jot ay message booy yi wallaahi ne si ñoom dañ naan ma soo ma wutul logement ma bàyyi jàng. gars yi di ko dund foofu mu metti mhm. loo xam ne batiment bi tabax nañ ko ba pare lu des mooy ay lal. waaw mais ay lal ñu toog ak moom depuis deux mille vingt ba trois ans. léegi yaa ngi ne amoon ngeen rencontre ak ministre bi. voilà rencontre bu mujj bi. fu ngeen toll ci yi nga xam ni mooy jafe-jafe yi nga xam ni moom nga lim nii. voilà jafe-jafe yi euh, avant ma ñëw ci rang dama bëggoon ñëw ci question interne aussi am na lu concerne interne bi. allez-y boo xoolee ci campus pédagogique bi. Mhm. am na bu ñu fa ay salle de classe. Mhm. université xam nga la ñuy bind ci emploi temps yi. salle à chercher maanaam yow professeur bi yéenay ànd di wër ci université fu ngeen jàggee am na ñuy defee cours ci garab yi ci ron mango yi am na ñu fay defee cours loolu moo fa am salle à chercher salle à la ñuy bind. non loolu deex na. parce que boo xiifee dagg maa ko lekk <laughs> salle à léegi nag <laughs> am na am na salle yoo xam ne ah. amphithéâtre yoo xam ne tabax nañ ko pare def ay siège def lépp lépp ngi taxaw. lumière moo des. lumière moo des électricité. ok moo des poste transformateur pour mu ñu mën ko utiliser étudiants yi di jàng normalement. Mhm. biir campus bi. côté pédagogie ay saal yoo xamante ni xam nga lu fa nekk. Hmm. ay jaan yu génn ay jaan. ay wallaahi lazim ay jaan ñu fa génne. ay yi di jar téeméer franc téeméer 500 franc. waaw presque dañuy daw ci administration presque un mois duñ ko réglé. lumière yi jar ay téeméer. Mhm. un mois duñ ko réglé. buy taw université huit mois da koy taw. huit mois Ziguinchor huit mois da koy ñu fa dëkk xam nañ ko. Mhm. da ngay day taw ngay dem di jàngi parapluie moom lu ko waay jënd jar ko foofu. mais da ngay dugg ci saal yi muy taw di seen di yi dund situation yu metti Assane Seck du université ñu de son noon loolu mooy wax ji Mm-hmm. mais pourtant yéen a wax ne da ngeen da ngeen da ngeen bëgg ñi fi nekk dañu bëgg a defar mais mel na ni yéen patience bi war sax amu leen ko parce que ñii bi ñu fi toogee léegi daanaka matagul bu matee 9 mois ci lay yem. barki démb ministre bi moom Abdourahmane Diouf def na point de presse su ma juumul mais après lan ngeen génn seen coordination bi ñoom ñoo génn di wax ne wax ji amul cohérence ak yi ni mel nit tamit boo ko dénkee dara da nga koy may tuuti patience. est-ce que jàppoo leen ni parax parax bi du tax li ngeen bëgg sax moo moo moo sotti. waaw xam nga li ma wax nii sànq sa à dire ñun ay étudiants lañ étudiants bu ñu koy wax je pense que intellectuel moo tax ñuy wax. Mhm. ku jàng ba mu bag moom war nga mën nekk intellectuel. Mhm. ñun ñëpp xam nañu état pour mu ñëw pour mu installé wu rek sa va prendre beaucoup de temps. Mhm. ñëpp xam nañ ko. mais dama la wax ministre bi moom moo toog mën nañu am naa xaalis bi loolu loolu am na yeneen secteur yu bari yoo xam ne grève wuñ enseignement ñi secteur kii bi éducation bi professeurs yi gisoo ñu grève. non non mais bokkoo leen de dama jox exemple xam nga xam nga tey jii. da ngeen foog ni. Hmm. def leen neex dara du leen ci fekk. non non. maanaam xam nga Omar. Hmm. loolu loolu wuru ko wax sax xam nga tax. même bu ñu jàppee ñenn ci yéen sax dañuy yëngal hmm. après ñu bàyyi leen. parce que li ngeen def noonu amul benn explication parce que aussi tamit li maa jigéen wax xam nga ni tey jii loo xam ne depuis 2013 nga wax ah, 2015 waaw 2015 ba tey jii 11 ans yéen a ngi ci daw mënoo leen ko jot taxul woon ngeen jëf-jëf ji ci nguuru Macky Sall. Mm. waaw mais jàpp ngeen ne nguur gu bees la lu bari mun na ko permettre lu bari mun na ko baale. te yéen te yéen da ngeen jàpp ni ay actionnaire ngeen ci ñi dox ba nit ñi ba maanaam ba Sonko Diomaye falu. jàpp ngeen ni kon léegi permettre ngeen seen bopp lu ne. pour mën a jot ci li ngeen bëgg ministre bi mun na leen wax li mais moom li ma leen wax nekkul ci poosam mais bu demee ci ministère des finances pour mën a jëli xaalis ministère des finances ne ko ah li nga diggoon booy de nekk gu fi mais loo loo leen bëgg. waaw très bien xam nga tey jii nii. Hmm? yow li nga li ngay wax naan li fa xew je pense la metti ñun la gën a metti pour pour pour ñu ko débat man mii la gën a metti dafa xew. parce que man université laa xam. bu leen métti woon di ngeen non non non déglu ma la. waaw très bien da may màggale rek. man si see ma bu ngeen ma may rek màggale. voilà gis nga gis nga ñun la fa xew ñun la gën a métti bis boo jàppee nekk état bu bees bi pression la ko gars yi teg moo tax li fa xew xam fa peut-être kon da xamul étudiant da nga xamul ñun on est assez responsable man 10 000 étudiants laa jiite donc tey bépp acte bu may jël dama koy jël ak sama responsabilité responsabilité étudiant yi dafa nekk sama ginnaaw yaa ngi dégg très bien amul nguur gu bees moo ñëw dañuy def lu ñu war a def loolu duñ ko def parce que ñun xalaatuñ ko parce que ñun tey jii li ñu bëgg mooy avancement réew mi ëllëg ñun ñoo jiite réew mi jomaay fi mu nekk nii ëllëg ñun ñoo fay nekk ñun tamit étudiants yi dañuy ñëwaat suba di dóor ay matt suñ kaw mhm. donc bul jàpp ne que ñun dañoo bëgg nguur gi di leen teg pression temps Macky Sall dañoo xeex c'est la première fois li xew Assane xew fa léegi nag li xew Assane Seck li tax mu xew fa mhm. dañoo war lañ moo ko waral étudiant mësul jii ma yàq université Assane Seck c'est la première fois ma gis ko mhm. man man def naa fa 4 ans man maa de ma jaaxal parce que c'est la première fois mësuma ko gis. mais sa gars yi communiqué moom seen communication. non non loolu man du ma si revenir mm. bi mm. parce que loolu ñoom Azura moo fa ñëwoon te c' purement politique aussi parce que Azura moo ñëw. yéen dafa loolu amu am. Ah. parce que boo yi fa nekk ne. Ah. boo yi fa nekk ne amul benn politicien bu leen mën a infiltré. xanaa kon dañ naan nguur gu bees gi leen infiltré parce que boo yi ñoo doon xeexal nguur gu bees ah loolu na la xanaa kon nguur gu bees mu lay infiltré. Mhm. on est assez responsable benn politicien amul fit sax ñun li ñu def syndicalisme ak politique bokkul man mii di wax ak yow dama am parti moo bokk ñëpp xam nañ ko ñoo xeexal nguur ba mu ñëw fii mais bi ma nekkee syndicalisme laa arrêté parti bi. parce que dafa mel bi la Omar laajee ci njëlbeen bi dafa mel ni danga nga joxoñ ne bu université bi amul sécurité étranger yeeg kii yeeg. ñëpp ay ñëw baat dafa am ñeneen ñoo xam ne yow tey jàpp nga ni war nañoo mën a def lu mel. du man du ma wax kenn moo def lu ne parce que tamit. waaw mais jàmm non non defal naa parce que non man du ma dugg si <laughs> détails yi xaw ma man xam nga tax. non yow yaa ubbi yow yaa ubbi bunt bi loolu di xew dèjà feebaroon. dèjà man dama feebaroon fekkuma fa. ma moo tax du ma ci du ma ci dugg. ma ne yow mais yow yaa ubbi su ma su ma fekke woon dinaa ma ministre bi. ah, ah, ah très bien foofu laay ñëw. Euh, ministre bi ñun dañoo demoon Saint-Louis parce que dañoo amoon benn activité bu ñu fay xew maa ngi leen di waxaale sax muy instance nationale boo xamante ni commission sociale yi daje Sénégal yi ñoom ñoo fay dajaloo pour di ànd di di def ay activité di xeexal étudiants yi loolu moo ñu yóbboon Saint-Louis am benn activité bu fa amoon tamit ñu ko doon euh, ànd ñu invité woon ñu ministre bi nekk foofu léegi ñun on a profité l'occasion en tant que les ñu wax ko Assane Seck avec l' ensemble des étudiants yi fa nekkoon yëpp ku ci nekk jël parole wax problème université ñëpp jël parole man maa mujjee jël parole moo wax ci problème Assane bi ma gisee salle bi aussi may nañu mel ni attention parce que tamit bi nee Assane rek ñëpp a reetaan situation peut moo fa toll actualité bi. Mhm. bi ma jëlee parole ma expliqué li ma leen expliqué li ñuy dund nii li fa metti nii la ñuy expliqué dañoo dara parce que discours am bépp Assane Seck la ko ma <laughs> waaw. parce que yéen a ko déglu kenn déglu <laughs> mënuñu ministre bi moom ministre moo ko wax mu ne moom nangu na ne carrément dafa juum ci deux mois yi mu joxe dane dafa bëggoon wax ne ci deux mois yi maanaam bu ñu commencé livraison yi dan deux mois lay am pour ñu jeexal livraison yi. Ah, dafa juum loolu la ministre bi wax. Mm-hmm. mais boo juumee ci communication yaa da ngay woowaat booy ñëw toog. beneen gars yi barki démb def na point de presse. non point de presse réglul affaire yi c'est-à-dire gis nga gis point de presse bi réglul affaire yi ministre ba mu commencé ba léegi mais wowul les responsables ñëw toog. Uh-huh. mais yaa moom moo ñu woon jam naa ñu na woowaat gars yi ne eh gars yi maa waxoon lii booy samay booy man maa waxoon lii dama juum wala boog maa waxoon lii mënatumu ko dem naa ministère des finances nee na kat ah xaalis bi mënatul la de naa ne eh, booy nañ dem jàngi dëgg la loolu mooy wax ci mm-hmm. ministre mu ne moom dafa juum ci deux mois yi gars yi nangul ko ko mu ne aussi affaire comment dire chantier yi affaire chantier yi ñu joxaat DMCS aussi defaat na mooy mooy directeur construction bi Alioune Fall hmm. Alioune Sène bi mu ñëwaatee mu ne moom tam jëlaat na parole mu ne hmm. en ce qui concerne li ma la wax nii mille lii bi uh-huh. nee na nee na semaine prochaine marocain ñëw nañu Sénégal actuellement waxaat na ne milliers yi dina lool. waaw marocain instant bi ñëwaat nañ ñëwaat nañ <laughs> ñëw ñëw nañ Sénégal léegi xaalis bi xaalis bi je pense que procédure moo ci def. booy kuy wax ak yow del wax effectivement <laughs> booy leer rek. <laughs> léegi mu ne léegi mu ne marocain yi ñëw nañ ñëw marocain yi bi danañ fexe. mil lii bi ñu livré ko au plus tard fin janvier. Mm. Mm. mille waaw zone de production mooy wax nii. Mm. waaw ne zone de production commencé nañ. léegi ñun bi ñu génnee lañ laaj ci Assane Seck ñu a ñu effectivement am na suuf su ñëw ak xeer. pour ñoom ak ay fer pour zone de production bi. waaw lumière ah, waaw parce que ñëw na foofu tamit. Mhm. ñëw nañ sotti nañ ko fi. ok ñun poste transformateur bi nga xam ne moom moo am. Mhm. ñun on s'est man ak sama yeneen PCS muy Maymouna Diop ak Birane Ngom ñun ñoo déplacé wu. jugee mhm. Dakar jugee Ziguinchor ñëw gis directeur Sénélec. bi ñu ko gisee avec ak benn madame Béatrice maa ngi koy nuyuwaale parce que moom jàpp na si bu baax. bi ñu ko gisee ñun ñoo ko posé question bi ne ko ñun nag jàpp a parce que Assane Seck li fay xew xam na ñun on responsable. Mm-hmm. kenn àndu ci li xew Assane Seck. mais ñun li ñu bëgg mooy que ñu waxtaan parce que guerre mondiale ci waxtaan la jeex. Mm-hmm. noonu jàppale parce que poste de transformateur moo tee salle de classe mu mu commencé ñu ñu ñu jàng. mi nga ko expliqué moom mu ne wax dëgg yàlla xamu ci woon lu bari. mais dina woo recteur bi bu paree ma jox ko numéro recteur mu ne dina ko woo mm-hmm. parce que université domaine privé la mais bala mu ci dugg. mu xamul boo xam université contacté na ak benn entreprise pour mu jox ko poste transformateur il faut moom mu waxtaanee recteur bi xam yan modalité lay indee poste transformateur pour mu commencer. Hmm. booba léegi moom. Hmm. nee na chantier yooyu fa nekk DMC sax ko wax mu ne chantier yi fa nekk Assane Seck. waaw yi nga xamante ni commencé woon nañu ko ba nga hmm. nag yeneen chantier yi muy 750 pala ak yi ñu war a commencé loolu fin juillet. incha allah rabbi am nañu yaakaar ne dina pare. léegi nag moom loolu la wax mu ne moom moom moo juum ci loolu mu ne aussi fond bi waxul ne jot na fond bi mais nag kilifa xam nga kilifa moom man ministre bi kilifa kenn du ko tiñal dëgg yàlla non man. wallaay dëgg la li nga man kilifa la parce que on est des responsables. dëgg la ministre c'est pas n'importe qui. mais ñu man li ma koy waxaat encore une fois muy xale yi fa nekk ay doomam lañ. Mhm. benn parce que moom nee na c'est de famille. Mhm. ñun bi ñu fa demee climat bu neex lañu ànd ak moom waxtaan ak moom. waxtaan ak ñëpp. Mhm. parce que dañoo jàpp ne àdduna tamit noonu lay demee. non ministre la sax. ja non liggéeykat la wax dëgg yàlla am loolu ñëpp nangu parce que bi ñu ko falee. non bi ko falee. étudiants yi dañu doon dañu doon jubilé di def. waaw ñëpp xam nañ ne ko nit. liggéey jàmbaar la. mais manque de communication moo am. entre communication moo war a gën ko diggee ne ko dinaa la jox lii mm-hmm. amul. Mm-hmm. woowaat ko nga ne ko booy kaay. ñun ay ay booy dañuy ñëw de. Ah wallaay Azim <laughs> dañuy ñëw. lii mënul ne. yow daal communication nga ngay bëgg effectivement voilà. Mm-hmm. point de daf ko yéex a def. université mënul tax crise am. nga xaar ba crise bi war a fay. point de presse ko de presse mu ngi bi nga koy def mu ngi toog nii man maa ngi toog nii man sama gars yi ñun journaliste yaa ngi nii taxaw li mu wax yëpp ñun ñoo ngi toog di ko dégg ñoo ngi fa toog. mais kon xam nañ li muy wax xam nañ tamit bëgg na defar. Mm-hmm. mais li ñu wax mooy Assane mm-hmm. bu ko bëggee defar. Mm-hmm. même bu fekkee parce que am nañ conseil académique extraordinaire jeudi. boo xam ne fa la war a wax ndax dañuy ubbi Assane Seck ou pas. jeudi mais bu ñu ko bëggee ubbi. sans ñu régler situation ba fa nekk nee. je te le jure day gën a. catastrophique. da ngeen a da ngeen a bëgg yéen ngeen waxtaan bu baax a baax. effectivement li ñu mën a régler président Diomaye mm-hmm. conseil des ministres dañu def instance d'urgence à université yi. livraison ah, des chantiers. Mm-hmm. mais bu ñu livré wul chantier yi nekk ne booy yi amuñ fu ñu fan. Euh, booy yi lekk bi lekk bi fa nekk dafa mm-hmm. doy waar boo parce que repreneur yi la ñu yoral vingt milliards. mais repreneur bi fa nekk dafa dem ba maanaam fournisseur yi nekk Assane Seck Ziguinchor. dañ ne ko duñ la joxati loo togg. Ah. repreneur bi dafa sonn. mais léegi li ñu bëgg mooy. maanaam lépp mënut a ñëw noonu nag. non lépp mun a ñëw mais dafa am urgence yoo xamante ne ay urgence. Mm-hmm. et ci booy amuñu fu hmm? mooy wax ji. c'est ñëpp mosoo gis ci àddina. waaw université bu logé ñëpp kenn am kenn mënu ko. université bu logé ñëpp nourrir ñëpp mosoo gis ci yi am na ñoo xamante ni ñooy bokk benn néeg ah. booy ndaw yi loolu très bien loolu ñëpp xam nañu mais le minimum sur dix mille étudiants hmm. neuf cent dix-huit lii am fa loolu fan la am ah, loolu fan la. 918 lii léegi lan ngeen bëgg. même pas 1000. li kilo urgent loo xam ne. waaw li urgent mooy lépp mënta ñëw. maanaam ñaar xoola xam nga 1000 lii bi lan moo ko teree ñu livré ko ay lal. ma. ak électricité ay lal man man fa la fa la d'accord fa la d'accord fa la Cheikh xam nga fa la d'accord ak yow. <laughs> Mm-hmm. man ànduma ci Sénégal peut-être loolu nguur gële la. ba pare ñettal non après après mën naa ñëw est-ce que doo may ma ma. may ma rek li. pourquoi ñu war dem ba maraf maraf 1000 li di ko commandé. très bien te ñëw ñu nguur gu nguur gu yàgg yi moom ñoom ñoo ko def. beneen bi des tamit mooy. <laughs> salle de classe yi nga ñoo fa nekk poste de transformateur. nañ directeur Sénégal bi dimbale. courant bi ñëw beneen ak ak kii bi zone de production bi. <laughs> Uh-huh. zone de production bi ñu commencé ko mooy de un mois bu tabaxee mu pare ñaari restaurant am fa coow li jeex. lan yi daal di ñëw. étudiant yi jàng normalement. mais loolu loolu kay leer na. après ñu commencé 750 tamit nañ fay repreneur yi. man nekkuma fi di leen plaider. parce que ma repreneur yi seen bopp ñoom seen seen kii la ñuy gérer ñoom seen mais bu ñu fay repreneur yi. day def activité wu ci mm, dëgg la. Mm-hmm. parce que tamit repreneur bu amul lu mu togg. Mm. étudiant bi moom mooy moom mooy moom ah. mooy souffrir. da nga koy jox ay ñun ci ay ceebu foie la ñuy lekk. ceebu fois luy ceebu foie. ceebu foie. mooy lan xam nga ceebu foie. ceebu foie lañu ah ñu def ko ceeb loolu moom. asan demande. léegi sécurité bi ànd naa ci ak sécurité bi aussi. ànd naa ci ak yow parce que. parce que sécurité ku doy na Ziguinchor espace bu noonu. <laughs> Université Dakar bi. nguur Macky Sall mën nga leen reprocher lu ne. très bien mais sécuriser ah, nañu euh, euh, bi may ñëw fa laa jugee. sécuriser nañu man en tant may ñëw fa laa jugee nii mais en tant que étudiant Assane Seck sama carte dugg biir. étudiant looy wax nii. xamul tax secret bi macha allah xam nga ñun secret Assane dafa am ñaar dafa am social. Uh-huh. mais ñun bi ñu waxtaanee directeur CROUS bi vraiment ñoom def nañ ci ay jéego CROUS bi maa ngi nuyu sa CSA moom sama waay la Omar Gningue. ñoom def nañ secret bi xam nuñ def. très bien foofu laa tëjee xam nuñ def ñoom. moom kuy dugg camp bi social. kuy dugg ci camp social bi ah. Uh-huh. dañ lay laaj yow foo jëm sa carte d'identité sa carte lépp étudiant loolu mooy yoon mais campus pédagogique ci grande porte bi commencé woon nañ ko mais dañ ko bàyyi. am na benn porte bu ñuy wax jaar biir côté côté ama uh-huh. ama bi. Uh-huh. foofu pédagogie moo ko moom mais guddi gi kenn du fa nekk moo tax université da ngay toog nga dégg tentative de viol am na fa. du fa jeex. ay jigéen yoon xamuñ dara ak zone bi ni mu doyee waar. je pense que sécurité war nañ ci mën a bàyyi xel. di waxaat encore une fois étudiants yi ay doom lañ ay rakk lañ bu ñu juumee woo la neen da ngaa juum. parce que nit ñi ku ne da ngaa juum. mais nañu nañu nañu nañu nañu doxalaat ñoo xam ne que gars yi fa nekk di waxaat beneen affaire aussi dissolution la dissolution de la coordination. ñëpp gis nañ ko. gis nit ki nit ki soo bëggee waxtaanam da ngay xam ko ngay waxtaanam nit ki mënoo koo ne ko yow représentant étudiants yi. ba pare après nga woote waxtaan mënul nekk da nga koy jox ak ak yeleefam ba pare ngeen woote waxtaan. Mm-hmm. gaa yi nekk foofu noonu da nga koy respecté très bien gaa yi nekk foofu noonu amuñu maanaam ñoom duñu xeex yoo xam ne amul njariñ mais da nga leen di woo nga waxtaan booy naqar ñoo waxtaanal wool nga waxtaan ñoom ne leen kat lii mooy situation mais nañ disu dissoudre corona nañ leen delloowaat ak yeleefam booy mën a nekkaat jàngaat. ba pare dimbaliwaat seen i étudiants di leen mën voilà merci Omar waxtaan bi neexoon na. xoj nga ma nag ci affaire taal mais nag man moom j'essaie ma défendre quoi di leen remercier ah, ah. vraiment di am mbégte ak contentement di wax ne que ministre bi am nañ si moom yaakaar. Mm. parce que li mu wax fële ne peut-être mu fexe temps bi. Assane Seck dina mën a dina mën a kii en tout cas di la remercier waat di remercier Baye Assane aussi mhm. di am yaakaar ne waxtaan bi tontu naa ci question yi waaw macha allah kay macha allah di remercier waat Assane Seck aussi ak délégué yi fa nekk yëpp mhm. parce que tamit ñoom gars yi ñibbi nañ mais ñoom ña ngi fa mm, di dund ci conditions yi métti mhm. nekkuñ ci restaurant bi amuñu lu lekk amuñu lu naan mais seen poche la ñuy jugee gars yi dañu matu cotiser sax di lekk foofu di waxaan ni vraiment maa ngi remercier gaa yëpp. di am contentement yàlla na fi yàlla def jàmm. allahumma amiin allahumma amiin Cheikh nekk avocat bu mag ah. Hmm. parce que yow dëgg maanaam jàmbaar nga. gis naa moom bu amee client di nga ko défendre bu baax gis naa ni nga gaa yi. mais di la di la ñaanal suñu borom yokk la jàmm. jàng nag lépp mënta a nooy. Hmm. waaw koo gis mu toog fii tey ñu koy xool rek. daa am ci condition yi mu jaar. effectivement waaw mm-hmm. ah, kon des muñ gi aussi da ci am solo bu ma la muñ ku muñ dina muñ quoi. kon ñu ngi lay ñaanal bu baax yow étudiants yëpp. di leen ñaanal jàmm yàlla defal leen. amiin réussite totale. Ah, njàng dafa métti mais yàlla bu ñu rëccu lu tax ñu doon njàng. amiin li ngeen di kaas aussi tamit dëgg la waaye tamit. ngeen defe ko neneen ba beneen yoon incha allah <laughs> di la jaajëfal kon suka ala jërëjëf Cheikh euh, nga nuyu ñu nag waa euh, Diourbel wala fële nga jëm Casamance Ziguinchor nga nuyu ñu waa Ziguinchor te indi leen courant indi leen lekk indi leen lal <laughs> merci beaucoup merci yaa booy ñu dem régie